et bienvenue sur senego.com nous sommes très contents d'être là ce soir pour vous présenter un nouveau numéro de Bathie Show comme ni ñu ko baaxoo rek di defee fii ci États-Unis d'Amérique saa su ñu dem di xool artistes yi nga xamante ñu ngi ci côté cinéma bi ndax xam ngeen ne depuis daaw ñu ngi woon ci euh, Lifeline ngeen seetaan euh, épisode yu bare bare ci saison 1 bi pourquoi pas ren ñu def saison 2 bi ak tam amélioration yi nga xamante ni ñoom def nañ ko ci ñu ñëw seet si kenn ñenn ci ay artistes bëgg a ñu waxtaan bi nag dañ koy tënk lépp rek jëm ci cinéma bu Sénégal xam ngeen ne nit ñi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo waaye itam waa diaspora bi itam ñoom itam kenn euh, teewulee ñoom itam ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo comme noonu la ñu bëgg fas yéene def waxtaan ak ñoom xool itam seen programme ak saison 2 bi nan lañ ko préparé lépp fi lay xewee ci Senego TV. maa ngi ci ak euh, Pawad alias Eliman yaakaar naa ne juum ma ah? foofu la. alors fii fii ñu la fekk ni moom mooy fan. waaw fii la ñuy daje souvent bu ñuy bu ñuy shoot vidéo yi ak you know filmu beeg affaire yu demee noonu waaw fii la ñuy daje most of the time. Mhm. alors ñu gis la ci euh, saison 1 bi yaa ngi ci woon mhm. yaa ngi aussi ci euh, saison 2 bi euh, ñu bëgg a xam nan nga def ba ba ba agsi ci Lifeline. waaw Lifeline bon mën naa ne bi mu doog commencé man sama copain dañu si waxtaan affaire yooyu xam nga mhm. mu ne ma pourquoi pas nga ñëw you know try noonu la tàmbalee ma ñëw jouer et tout commencé saison 1 bi gis nga nu mu demee woon calmement après bon progressivement personnage bi commencé génn quoi. allo. allo. allo. <laughs> Yo, who the fuck is donc euh, li ñu la jox loolu yow yaa ko demandé wala loolu scénario bi moom moo ko laaj. non non non demandé wu ma ko. luñ ma jox la rek. you know personnage la boo xam dama ko war a incarner pour jouer ko juste par rapport ak script bi ak film bi nu mu demee ku nekk ak rôle bi nga war a jouer ko dama ñëw rek ñu jox ma ko. Mhm. d'accord d'habitude fii nan lay demee. waaw bu ñu liggéeyee ba wàcc wala bu ñu like days off yi nga xam ni kenn liggéey jiwul wala ñi war a shoot ñu xool seen. availability ku nekk fa ban instant ngay amee jot. boo boo leen amee jot rek ngeen daje shoot après noonu rek nga ko mën a defee parce que da ngay nekk si job bi da ngay busy daw mën tout le temps dëkk ci shoot ci shoot mais d'habitude dañuy def ku am temps rek nga ñëw ñu shootal la euh, peut-être benn ñaari scene ñett ça dépend noonu lañ koy defee. métrage métti na waaw waaw bon métti na si peut-être waaw bu ñu koy jël di jëlaat di jël di jëlaat mais méttiwul parce que tout le temps. ambiance waxtaan kafre xam nga break kii bi. da ngeen ni bandi bandi lu yéen bandee góor gis nga kooku ba ngeen defee euh, euh, séquence yi ba ñëw nekk sa kër nekk en l'aise di ko setaan nan la nan la lay def. day si man. Hmm. day bizarre parce que xam nga personnage bi may incarné dafa xaw dafa xaw Euh, brutal quoi. waaw daf may daf may dinaa. da ngay am gêne quoi. gêne. tu as trouvé le mot damay am gêne parce que c'est c'est totalement différent ak sama ak man quoi. comprendre nga ay rey nit ay buntu xataal jigéen yooyu noonu. donc boo koy seetaan effectivement dina def benn choc. donc instant li nga bëgg xam rek maa ko mën a jox. dina père kon waddalal ñun amuñu temps instant bii nii li ñu wax rek mimi. mais mais loolu yow da nga koy dund wala loolu personnage bi ñu la jox la man bu ñu génnee ci ci ci ci ci film bi ndax loolu yow la wala wala wala keneen la. no mënul nekk man kon est-ce que gars ma fekk si kaso bi di sàcc xaalisu nit yi di reyaate non non no du man mais quand instant bi ñuy joué. damay jéem a nekk si personnage bi waaw jéem a euh, joxe à fond quoi ba nga xam ni dañuy gis nit boobu si like day relaté quoi da naan kii. est-ce que du moom waaw noonu la demee parce que da ngay jéem a nekk à l'aise ba nga xam ni da ngay incarner personnage bi ku la xool danaan sa waay nii xam nga alors que def nga ko ay cinq fois balaa muy gën. parce que da nga koy def ngir bëggal kii nga xamante moo def scénario scénario bi pour moom tamit li mu la soxlaa mu kontaan ci. effectivement parce que scénario la bu fekkee dañ la ko jox nga taxaw di bon benn bennal ci écran bi di mais kon. du jaar nu mu war a jaaree quoi foog nga génn carrément si yow ki nga doon dugg si personnage boobu def yi nga xam ne ngay gis nit ñi mel noonu di def wala genre demee noonu pour indi personnage bi en vie quoi. mais fils lan ngeen def sama oto laa xamul et eh, sa chauffeur mi euh, xarit yi euh, ñoom yaa ngi am ci ñoom ay feedback euh, na naka lañ gisee say séquence. waaw feedback yi positif na. Mm-hmm. parce que gars yi naan la you know mm-hmm. ni nga ko joué rafet na ni nga ko defee nice na en même temps ngay am feedback bu négatif bi tuuti. Mm-hmm. parce que am ñoo xam ni ñoom dañuy jël film bi di ko dund. ñoom dañuy dugg ci biir film bi ba nga xam ne yow boo reyee nit yow reykatu nit lañ lay xoolee alors que personnage la mais da comprendre aussi que. né négativité boobu noonu c'est par rapport ak nu ñuy commentaire film bi parce que ñoom aussi personnage yi la ñuy commentaire waaw boo bonee di rey nit di def ay affaire non gars yi la bëgg foog mu am ay quelques kii yoo xam ne kii lu tax mu def lii lii ko tax mu def lii ñi nga xam ne dañuy dund film xam film xam scénario scénario yi nu muy demee ñoom dañuy dañ koy dundee beneen level comprendre nga ñooñu dañuy comprendre dañuy gëm ni yow dañuy dugg dañuy xam ne yow dugg nga si si pot bi joué nga jeu bi soo personnage yu Elimane nit ku bon la reykatu nit la nii lay doxalee soo ñoom seen jugement mooy waaw Elimane ni mu ko joué perfect comprendre nga donc euh, feedback su ma gisee aussi ni nga interpréter film bi da am xarit bu ko dund wala da nga am ñoo xamante ne expliquer histoire bi parce que dañuy gis ne ces séquences yow dañ ciy dem ba jeex waaw dund ma ko xamuma ko ko dund tamit parce que xaw ko ko dund rey nit saa ci xaalisu jàmbur. da nga sérieux da nga joxe la rek. li mu li li histoire bi laaj. nga xam ni moom la ñu waaw loolu rek laay laay laay toppaat. comprendre nga dama koy ak personnage yu film bi defuma ko parce que xam naa ku ma xam wala dund naa ko non non dama ñëw rek nekk si nit ki te comme dangay nekk di wax reykatu nit ak defkatu genre yooyu. donc da ngay jéem loo xam ne nii. yow si sa imagination nit ku bon nu muy doxalee rey nit ok reykatu nit moom mënul ñëw rek nekk koo xam ne day day nooyal foofu yenn saa nga jékki-jékki génn sa zone du gat xam nga. père lu ñu bandi dañ koo maîtriser. dañ sa loxo. père dugg naa sa kër ñetti euh, euh, euh, la nekkee ak team lifeline bi yëpp seen relation ak ñoom nan la demee. famille la ñu dañuy daje di def ay affaires yu cool waaw waxtaan on tout le temps ku nekk mi ngi communiquer ak sa morom parce que aussi avant lifeline xamante dafa ama so luy continuer la rek et puis dafa gën a solidifier ba nga xam ne ku nekk bon frère et sœur la waxtaan tout le temps on essaie de faire des trucs ensemble wala daje def ay affaires ensemble léeg ñu demandoo Sénégal ensemble donc c'est cool Mm-hmm. alors yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee sànq liggéey bi yomb na yombul mais ci côté film la donc yow tam ñaan nga yàlla aussi avancé dem ci kanam ah en dehors du aussi est-ce ngi topp loo xamante ni peut ci biir cinéma bi dina la mën a lancer yóbbu la fa sori. bon du ma ko du ma ko du ma nekkagul carrément duggaguma si carrément. Mm-hmm. parce boo ko seetee bi mooy sama première fois may jouer any film. en dehors du euh, en dehors du cinéma bi euh, en dehors du film bi lan la lan la élément di def en New York City. waaw man damay damay liggéey liggéeyal Amazon logistique fa nekk di job en même temps damay jënd fi ay yóbbu Sénégal damay jaay ay oto ay jàppal baax rek ñun moom on est partout. un mot pour sa xarit yi ñi nga xamante ne lay béggee leen lay seetaan papa Wade mais Elimane bi bokk. <laughs> waaw bo di leen wax ni j'espère que ñoom ñu ngi ñu ngi enjoy euh, film bi. ni que ñu ngi koy ñu ngi koy dund et que neex na leen puis di leen wax ni affaire yi mu ngi gën a ñëw am na yu daax sax yi jot a génn léegi nii so nañu nañu nañu xaar rek dinañ ko dinañ bég daal. Mm. Mm-hmm. kon ndaw si daal mujj nga ko mujj nga ko sàkkal pexe nii rek suñu suñu actrice suñu actrice principale mujj nga ko sàkkal pexe. yow ñun nga amal affaire amoo ak ñun ñu affaire ñun ñooy lekk sa xaalis ñoo rey say doom boo amee koy waxal waaw bon moom moom sooram loolu la woon si film bi mhm. donc falee ñu xama falee ñu éliminer ko parce que Elimane mhm. moom foog mu gis xaalis bi rek lay gis mhm. donc luy taxaw si yoonam daf koy effacer jël xaalis bi après c'est tout mais bon euh, encore une fois film la. Euh, gars yi ñu ngi xaar sa face à face ak Abdoul xam naa loolu moom du yomb. non Abdou xiir bi daf koy dal eh, parce que Abdou foog ma lijjanti xaalis moom dafa bëgg ñëw tëdd si xaalisu xale yi waaw eh. léegi man dama bëgg tëdd si xaalis bi xëccoo la rek mën sa moroom duma eh, voilà donc lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel ci internet waaw di leen wax ni bon ñu ngi ñu ngi gis euh, support bi ñu ngi gis gars yi nu ñu ñuy vraiment supporter nu ñuy seetaane message et tout vraiment euh, kontaan nañu et puis euh, ñu ngi espérer vraiment indil leen ñoom lu ñuy espérer si ñu. voilà donc c'était donc bàcc Show ñu ñëwoon fii seet si waa équipe bu Lifeline du ñàkk dañu amaat ak yeneen euh, interview ak ñi nga xamante ñu ngi ci ginnaaw mooy ñoom Alioune Sine ak Mara ak ñi nga xamante ni rek ñoo ci ginnaaw di leen gërëm bu baax a baax di leen sant Bathie Show dina ñëwaat ci beneen numéro fii ci Senego TV.